الله إلا الله لا إله إلا الله الله إلا الله لا إله إلا الله لئن عزني لقي النبي ووصاله فقد دام لي تذكاره وخياله وإن عظني مدح له وثناؤه فقد طيمني نوره وجماله الله وسل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والغاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وردي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إما تسير لنا بهذا المعذر وتأتي به بنظرة تأتي لنا بزمان mbokki jullit yi mbokk yi topp Paradise TV seen jataayu firi alquran dellu si waat na ngeen ànd ak seen mbokk ci yàlla Baye Mokhtar Touré ñi ngi sant borom bi tabaraka wa taala di julli ci yonentu yàlla muhammadu sallallahu alayhi wa ala wa ashaabi ajmain ñu ngi ñaanal mboolem koo xam ne yaa ngi topp programme bi yàlla defal la tawfiix ak taysir ak najaax yàlla déggloo ñu alquran topploo ñu alquran bokk yi ñu ngi woon ak yéen ci téere bi yàlla bi téere bi nga xam ne pour ñépp la pour fépp la pour faw la téere bii nga xam ne mooy dusturul muslimina mooy loi bi nga xam ne buñ ko attewoo mandu nañ waaw buñ ko toppee jub nañ te buñ bëggee jàmm itam buñ bëggee am jàmm danañ ko danañ danañ appliquer loi bi maanaam danañ ko tatbiix loi bi suñ ko bàyyee gannaaw rek xat-xat la ñuy yokk wa man arada an zikri fa inna lahu maisatan dankan wa nasuruhu yowma alqiyamati ahma luwaa bi moom yàlla saxal na ne buñ ko joxe gannaaw rek dund ci xat kon bëri na xat yu ñuy jàmbat ak jafe-jafe fekk ñun ñoo ko teg suñ bopp tey nag ñu ngi woon ci suratu baqara ci aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett aaya bi sababu nusoolam mooy dafa wàcc ci yahood dafa wàcc ci xeeti yahood yàlla di leen wax ne yéen daal yéen yahood daal manduhu leen manduhu leen mooy lan mooy li yàlla wàccee ci yéen te muy tawraat du ngeen ko jàngale jàngale wu leen ko dëgg-dëgg jàngale waaw même bu ngeen ko jàngoon dëgg-dëgg jàngit jàngalewu leen ko dëgg-dëgg jàngale li nekk ci tawraat waxu leen ko nit ñi dangeen di nëbbu dëgg ak yàlla gi kon aaya bi ñuy dugg tey mooy yahuud yi dañuy nëbbu dëgg yàlla gi nëbbu dëgg nag bàkkaar bu rëy la waaw ku xam dëgg te ñuy wax loola dëgg da war a wax dëgg kon yàlla xamal na leen dëgg ci tawraat yonti yónti musa wax Musa, len deug ñoom ñi gis deug ga denc ko di wax xaan la ca gannaaw deug ñom la yalla di lolu nak da fay diri sembana, banam ni ko serigne bi daan waxe ci mbollem julit ko xamne jox nañ la téré bi di alquran jox nañ la deug soko ko ba pare man ko tafsir war ko jotti li jami yalla boo moytuwul aaya bi dana dal ci sa kaw mooy loo wax nit ñi lu tax nga wax nga wax leen lii loo jublu ndax la ci seen loxo ya nga bëgg ndax la ci seen poos yee nga bëgg ndax ku la yéem nga bëgg lu tax ngay jàngale nii ndax wax nga aaya bi niñ ko niñ ko santaane ndax mën ngaa jàngale aaya bi ni ko nit ñi mën a déggee mu jëriñ leen foofu lañ foofu lañ lay xaar ci terrain boobu lañ lay xaar su dul loolu rek euh, aay bi dina dal ci sa kaw de sama borom ne innal lasiina naka gaañi nga xam ne da yaktumuuna danañu nëbbu maa na la wàccee nañ ko ñun yàlla minal bayinaatin ci ay lay yu leer nañ ay dalil waaw ci ak dëgg dëgg dëgg dégg nga yu leer nañ ay dëgg yoo xam ne dafa ànd ak dalil ñu wàccee ko wal hudaa ak njub ñu wàccee loo xam ne maanaam dafay jubal jaam bi min baadi maa bayan naaw ci gannaaw buñ ko leera leeli naa si ñeel nit ñi fil kitaabi ci téere te mooy lu mel ni tawraat ulaa'ika ñooñu ñoom ñii nëbbu dëgg googu yalhanuhum yalhanuhum dana rëbbu leen dana sëril leen yermande yalhanuhum dana sëril leen yermande allahu yàlla wa yalhanuhum dana mu rëbbu leen allahi nuuna way rëbbu yi te mooy malaayika yi ak lenn ci jullit yi jullit yu baax yi danañ leen rëbb borom bi li muy wax ci li muy wax ci aaya bii mooy surtout baqara ñi nga xam ne dañ leen di jox dëgg dëgg boo xam ne dañoo bañ ñi fàtte ko ba tax ñi bind ko ci téere wàccee ko jox leen ñi jël dëgg ga dem di ko firee nu mu leen neexee waaw ñooñu am nañ problème kon da firi dëgg gi nim neexee waaye doo ko firi nim la neexee firi ko nim neexee nim neexee mooy lan ni nga xam ne ku ci xool sa bopp gis ko ci maanaam ku xool sa bopp ci li ngay firi gis ko yow mii firi sax da ngay gis sa bopp ci biir ci digle yeeg tere yi loolu mooy firi ko nam neexee waaye bul ko firi yow ci nim la neexee ndax su boobaa mun ngaa wax lu dowut dëgg benn nga fenal yonentu yàlla muhammadu wala nga fenal yàlla te yonentu yàlla mooma nee na man kadaba alayya mutaamidan falyatabawa maqaduhu fi nnaar képp ku ma fenal danga am saala cabinet ci safara moo tax yàlla nee na yonentu lu jar di bàyyi xel la balaa nga koy wax yàlla nee na ñii nëbbu dëgg gi ci gannaaw bu mu leeree ma leeral ko bañ gis ne lii dëgg la ma bind ko ci téere jox ko ab yonentu mu isil leen ñu jël dëgg ga denc ko buñ jàngee tawraat ba gis fuñ bind yonentu yàlla muhammadu ñi teg ci seen baram duñ ko nangoo tudd su amee foo xam ne bind nañ fa melokaan wuy tegtale mujj yónent yónneeku yonentu yàlla muhammad ñi rooba ko wala euh, dégg nga ñi romb ko duñ ko nangoo jàngale maanaam daal duñ wax nit ñi dëgg gi waroon nañ leen a wax ne leen yonentu yàlla muhammad tawraat tudd na ko war naa ñëw ci araab yi lay feeñ dëkk bu ñuy wax màkka dégg nga bu feeñee euh, dana gàddaay dem Medina amul dara lu leen lu leen lu leen lu leen lu ci yonti yàlla Muhammad amul dara lu leen ci nëbbu ñoom yahud waaye dañoo lànk ndax ñu ne ñu ne du yahud yonti yàlla Muhammad du yahud bokkut ci seen xeet wi te yàlla ñoom liñ miinoon a xam mooy depuis Ibrahima dégg nga ba ci ñoom yàlla ci ñoom lay yónni te Ibrahima moom ñi ciy boole sax moom duhut yahud waaw Ismaayil ak Isaaxa sax duñ yowat kay da ngay dem ci doomi Isaaxa ja muy Yaqooba Yaqooba ak fukki doomam yaay ñaar fa la ñuy déparé di uti yowat kay léegi nag ñoom dañ lay wax na la Ibrahima ba ci ñun yàlla ci ñun lay yónni ay yónentu lu tax ñi toog toog ñu naan yàlla yónni na ci araab ya kon ñoom lu tax ñi bañ ki ñaan la waaye duur yàlla nee na nag ñii am nañ sëri ak mande yàlla waaye am nañ rëbbam euh, malaayika yi ak julit yu baax yi ila lazina taabo ndere gaaña nga xam ne tuub nañ wa aslahu ñi yëwénal mooy ñi def lu baax wa bayyanoo ñi leeral fa ulaayika ñooñu a tuubu daf na nangu tuub alayhim waral leen a tuubu danaa nangu tuub man yàlla alayhim waral leen wa ana man yàlla at tawaabu may nangu tuub yi arrahimu may dégg nga yërëm jullit borom bi tabaraka wa taala nee na ilal la si ñi tuub waaw ndere ñi tuub tuub nag ah, bi yàlla wàccee jaam ñi ci kaw suuf xam ne dañoo nekk ay tooñkat ci la leen boole li ñu tuddee tuub moo tax boo demee ci aadama miñ lay wax ne mooy abal basar waaye loolu saahir la yonent yàlla ma man mooy abul basar waaye aadama moomu ca biir àjjana ca biir àjjana la defee toj-toj yi yàlla wàcci tuub wàcci tuub sànni ko baadiya muy rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin kon tuub lu fi yàgg kon jaam bi ne rek xam na ne du mën a ñàkkaa yàlla waaye mu boole koog tuub tuub nag foog nga dëggu mooy lii maa ko defoon man am naa lu ma wër na lii baaxut ba kana ma ko def loo dootuma ko defati waaye duut ne tuub mooy rek astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah suba ngoon te boo paree ci astaghfirullah ba nekkaat ci loola neex gan baax na waaye am na la ko gën mooy jéem a buddeeku jéem a génn ci li nga doon def te neexul yàlla waaw fas yéene itam doo ci delluwaat nag li des ci sa dund bi ñu ko borom laax dëre di jàngale téere boobu nga xam na ñu bari euh, jàng nañ ko mu ne ñu nga xam ne dañuy nëbb dëgg yàlla dana leen sëril yërmandeem ndere ñu tuub nag mooy gannaaw gi ñu tuub waaw bu dee yahuud yi ñu ci doon nëbb dëgg gi nekk ci tawraat ku ci tuub ñëw ànd ak yonentu yàlla muhammadu wax dëgg wala nga wax nit ñi dëgg dégg nga yow génn nga ci bu dee nasaraan yi la koo xam ne ci bible bi yow gis nga dëgg gi nii yow leen jiital nga war koo jàngale jàngale wala dëgg gi ndax nga koy wecc di wax lu la neex bokk nga ci rëbbam yërmande maanaam rëbbam yàlla muy sërilam mande yàlla ilan la si ne taaboo ndere ñi nga xam ne xam nañ ni liñ doon wax du dëgg ñi soppeeku di wax dëgg bu dee ci alquran la ñi nga xam ne jàng nañ alquran xam nañ ko xam li muy firi ñoom itam ñi dem di ko firil nit ñi ci loo xam ne dafa utee ci loxoy nit ñi poosi nit ñi ñu jox la ko bu nit ñi yëngalee seen loxo tàcc kontaan rek baax na bu wax dara loo xam ne dëpp na ak yàlla wax su boobaa yow itam dugg nga ci euh, sërilam yërmande yàlla yow moomu di firi alquran noonu waaye su fekkee tuub nga dellu si waat fas yéene wax nit dëgg gi su boobaa yàlla ne ma nangu tuub gi rek kon tuub la am solo la doomu aadama am na lu ñuy tuddee tuddee wujjóot am na lu ñuy tuddee wujjóot mooy wujjóotam gi wujjóotam gi moom doomu aadama bàkkaar la xamam gi moom doomu aadama wujjóotam gi bàkkaar la waaw xalal xalal jim téye ba mu dox diggante moo yàlla yëg ne moo ko moom bàkkaar la moom ngay dégg yàlla ne wa aatoohum min maalillaahi ana borom alal yi ñu ne ñu ngi yàlla mu ne joxe leen ci alal ji alal ji ma leen jox maanaam ci alal yàlla ji kon xam nga alal moomu la ko kon moomu la sa wujjoot gi moomu la sa alal ji moomu la say doom moomu la sa askan moomu la moomu la yi nga moomul noonu nag waxtu woo ko moomee loolu wujjoot la te loolu dana la yóbbu ci bokkaale gi gën a rëy xam nga nit ñi dañoo yaakaar ne bokkaale mooy samp xiram ci sa kanam rek di ko jaamu bokkaale bokkaale gën naa sew loolu waaw waaw kon fexeel jël sa wujjoot gi te mooy sa sirru ba sa nafsu nga boole ko mbooleem loo jàppoon ne yaa ko moom nga delloo ko borom bi nga xam ne mooy la walu di laaxiru di zaahiru di baatinu delloo ko ko bu fekkee yàlla dang fee nekk mu nekk fi yàlla ne huwal awalu man maay lawalu yow fooy jëlee lawalu yow soo xaccoo yàlla ak njëkk yàlla ne la maa njëkk jël naa ko yow amatu la njëkk ngeen mujj yàlla ne huwal axiru yàlla ne man maa mujj léegi nga bëggoon a wax ne yow yaa mujj yàlla ne la man maa mujj kon jël na mujj foo ko jële amatuloo ko nga ne kon nag man maa feeñ doomi diw sàngam ci dëkk sàngam man arabe la pire man man euh, nit ku ñuul la pire africain piir nangam nangam ci askan sangam la bokk xam nga wujjoot ñëw na mooy azzahiru mooy feeñ nga bëgg a jël nala yàlla na moom azzahiru yàlla la kon yàlla nangu ko nga bëgg nekk fay di làqatoo ko nëbbutu yàlla ne albaatinu man maa nëbbu yàlla nangu na nëbbu am yow yow amuloo dara boo setantalee laa wax nag boo setantalul li maa wax nag mën nga koo déglu te du la jëriñ waaye bu fekke xalaat nga deug nga jëfandikoo sa xel da nga xamne amul dara dara dara dara dara ben kawar gi gëna tuuti sax moomuloo ko dara wala ngay am dara kay dafa fekk yow ya ko créétal sa bop xam foko jëlé waye yow am na jamono nekkuloo fi hal atta ala insanin hinun min ad lam yakun say'an maskura nga tok bam yag rek yalla boole ay élément ba nga taxaw te bi nga taxawé ba xam sax taxul nga xam dara yaa ngi moom yaa ngi moom bañ dugalal la roxo gi nga xam ne dafa ànd ak tamis nga commencé xàmmee te yow tur wiñ la jox fi nga ko fekk suuf si nga taxaw fi ko fekk asamaan si fi nga ko fekk jaww ji ngay nokki fi ko fekk yow lépp loo xam ne yaa ngi ko yooree ba di ko ndamoo fi nga ko fekk xaalis bi nga denc ci banque bi sax xaalis bu jaaroon ci ay loxo rek la te dana génnaan ci sa dem ci ñeneen waaye waaye waaye waaye yow loo fi yoore ndax lii boo seetantalee kon am na benn buntu boo mën a jaar pour war a rëy nga dellu ci sa borom moo tax yàlla mu ne rëy sama koddaay la sama làmbaay la waaw rëy al kibriyaa ridaa man maa ko lëmasoo képp ku ko xaccoog man di jéem a rëy mu ne danaa futti mbubbum mi mbubbum rëy moomu danaa ko génne ba pare dugal la safara kon illal lazina taaboo mu ngi noonu kon ku bëgg tuub bunti tuub yaa nga ubbeeku na daw nag ca ba ngay ami tànk su fekkee ne yow xam nga léegi ne ko war a dellu ci yàlla nga demal seeti ñu dellu ci yàlla nga ànd ak ñoom ndax ñu delloo la ci yàlla loolu la alquran waxoon wa tabbi toppal sabila man anaaba ilayya yoonu ku dellu ci yàlla lii moo fi isi toppante bi toppante bi léeg-léeg am ku tëdd néegam naan man daal toppante yi man nit daal tëddal sa néeg rek jaamu yàlla nangam ah kay toppante man ta ñàkk xadum na yëpp noonu la ko yàlla programme toppante xadum na lépp caméraman bii judduwut ci ndey ak baayam mën a caméra ki liggéey caméra bi ki nga xam ne moo ko liggéey kooku judduwut ci ndey ak baayam mën a liggéey caméra bi hmm? yow mi ñëw judduwula ci sa ndey ak baay mën a ñëw yow mi driver judduwula ci sa ndey ak baay sa ndey sa baay nga mën a driver dégg nga yow mii defar mobile bu yàqu bi demet mbooleem mécc yi lu ci nekk ba nga juddoo amagula li ñu tuddee ruuxu tamis xàmmeegu la da nga dem ba xàmmee ñu yóbbu ci benn waay nga koy roy mu lay gëdd di la wax lu la naqadi di la lo ngay xif yang mom yang mom ba nga man ne ci mooma waaw legi pey yalla bi te de sa bi néeg dina la setan la ko jox il faut ñu setantal nak mbiri mota yalla non kon nak wotab bi baatab wotab bi amar la kana kana ko mom ñun ñep way way way wotab bi bul sabila man yoonu ka nga xamne ana ba ilayya del si ci man yalla ta top ko du muy wax rek nga tok di deglu dedet lol doy top topp top topp rek la man ma yow buñ andé nga topp ma may daw di di dugg auto di wacc yow ngay dox duñ and do ma topp mukk kana làmbatu waaye do ma top. soo ma bëggee topp kay suma duggé moto duggal moto suma suma suma waré bicycle nga war bicycle suma may dox nga dox suma waccé endal nga endal dima dima gis fuma jaar suma lef nga nga kof suma suma koofee right nga kof suma koofee left nga kof nga kof moy suma jadde right nga jadd suma wiré left nga nga nga nga wiré lool lu muy tekki moy yaang ma top waye top nit ki rek bi top topp nit ki tok sa bir néeg rek déglu nako rek lool doyut demal outil ko andat ci yalla nek la alquran wax budul lolou day nek naxe te naxe baxut day dundou moo tax boo koy uti ci kuy dund nga koy uti ji ci kuy dund kon nag alquran a ko saxal tuub leen wa ana man attawaabu arrahimu man maay nangu tuub yi te maay borom yërmande ji ca kanam eh, dégg nga ca àllaaxira arrahim rahman moo dellu ci aduna rahim moo dellu ci àllaaxira lépp rek yërmande la ak mangoog sama borom nee na inna lazina naka gaaña nga xam ne kafaroo weddi nañ wa maatoo ñi dee wowum ta booba ba ñuy faatu ku faarun dégg nga xéeféer lañ ulaika ñooña alayhim dana war leen alayhim dana dana tegu ci seen kaw laanatullahi sëri lam yërmande yàlla wal malaikati ak ak ak rëbbam wannaasi ak rëbbam nit ñu baax ñi aj ma xeena mboola seen de waaw ñoom ñëpp danañ ko rëbb ki weddi yàlla te dee xaale gi weddi yàlla gi kooku police menam day continuer waaw daf koy rëbbu malaaka yi di ko rëbbu nit ñi di ko rëbbu métti na yàlla malaaka yi nit ñi su boobaa weddi gi mu weddi woon yàlla moo koy yóbbu ci mazahiri seytaane yi xam nga mazahir dafa am mazahiru salaasa ci pii yàlla bi wa mutasahiru waahidun kenn feeñoo ko mazahiru salaasa ñetti feeñu waay wa mutasahiru waahidun kenn feeñoo ko ci pii yàlla bi loolu xam-xam la ku ne war na koo lijjanti dafa am itam mazahiru salaasa ca seytaane wa mutasaayiru waahidun kenn feeñoo ko hmm. masaayil saytaane moom la sëriñ bi di wéy ne wa hafathu lusuusun hawa nafsin tunasillah wa saytaanin wa dunyaawin ayaa laxfi wa yaa allah hawa nafsin wa saytaanin wa dunyaawin gis nga masaayir yango boo defee mutasaayir bi dal di ñëw nag feeñoo ko léegi nag nan ngay def ba mucc mooy masaayiri seytaane yooyu mooy ñetti feeñu waaye yooyu seytaane di feeñoo ci jaam bi benn bu ci nekk bu feeñee ci sa jëmm daf cay def ayib ayib maanaam daf cay def feebar moom la sëriñ bi naan li nafsi xaybun lil fuaadi xaybun wa lil ruuhi xaybun laysa fiihi rayb li nafsi haybun hawa nafsin tunasillah wa lil fuaadi haybun wa saytaanin wa li ruy haybun wa dunyaawin kon ndeka sa bakkan bi dafa xopp nafsu xalqiya bi mooy dund te kooku boo ko toppee rek inna nafsa la amaaratu bi suu yusufa waxoon na ko bañ ko tuumaalee saaram wa surtout yusufa moom xam na ne deful deful liñ ko tuumaal ca jigéen ña tuumaal nañ ko ba muy niru dëgg ba tax ñu tëj ko waaye ànd ak bi ko yàlla setalee ba mu set itam daf ne yàllaa ma setal de waaye man duut maa setal sama bopp ci suma bakkan ndax man xam naa ne bakkan saay-saay la wa maa ubari'u nafsi inna nafsa la amaaratu bi suu kon bu kenn óolu bakkana kon xawaa nafsin tunassillah sëriñ bi nee na bakkan bi bànneexi bakkan bi lay fàtteloo yàlla wa saytaanin mu ñëw def feebar moom seytaane ci sa xol def seytaane ci sa xol wa duniyaawin mu ñu def feebar bi ci sa ci sa roxo gi kon gis nga bakkan bi dafay feebar xol bi dafay feebar roxo gi dafay feebar ni nga gisee ne jëmm ji dafay feebar rek kenn ku nekk ci ñun sa jëmm toujours nga ci fiil di ci yëg loo xam ne xam nga ne lii bokkut ci li may yëg nii daal daanu ma ko yëg biir baa ngi faral di métti wala toujours suma bëri di di lëndëm wala nopp yi di riit wala bopp bi di métti wala tànk yi di bañ xam nga ne loolu feebar la ci jëmm ji loolu boo ko fajul fu la jëmee yow xam nga ne sa jëmm ji roxoon ci yow xam nga ne sa jëmm ji ah, dégg nga xawaa nafs bakkan mu ngi fa hmm? sa jëmm ji xolan ci waaw kon bakkan bi ak xol bi ak roxo gi ñoom ñëpp sax na ne dañuy feebar luy seen feebar ak kuy seen docteur lu tax may leeral li mooy li ma la waxoon léegi ne watta bi toppal sabila man ba ilayya yoonu ki nga topp noonu ta mu dellu ci yàlla kooku mooy mooy docteur bi mooy docteur bi faj feebaru xawaa nafsin bi bakkan bi mooy faj feebaru xol bi mooy faj feebaru roxo gi soo ko toppalante nag da nga naan roxo dégg nga ak euh, xol bi ak bakkan bi waaw kon roxo feebar li nafsi xaybun lil fuaadi xaybun wali ruuyi xaybun sikk nekkut ci te ku feebar bëgg nga docteur kon docteur yi jëmm yi nga xam ne ñoom ñooy faj jëmm yi nañ waaye docteur yi roxo yi mooy problème bi docteur yi mën a faj xol docteur yi mën a rey bakkan bii dund bakkan bi nga xam ne hawaa nafsin rek la la isil ñi rey ko taxawal nafsu xaq kul jaal xaq wa xaqal baatil docteur yi ñooy problème bi xoote ko yomb na de waaye doo ko yomb de docteur yi dañ ko war a am ndax yow boo waxee ne docteur yii faj yaram mu ngi fi waaye docteur yi faj roxo yee xoli moom dee nañ nekkuñ fi fuñ jëm yow boo waxee ne iblis moom mu fi ku def toj-toj bu waxee ngi ne ah lii de seytaane la rek iblis dafa jaar rek waaye yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne mooy opposition yi iblis nga xam ne moom moo bëgg a escanté iblis génne ko fi moom nga ne dee na nañ ko ba tey tam fu fu mucc di amee iblis a ngi dund yonent yàlla Muhammad faatu na fu mucc di amee te yonent yàlla Muhammad sooy julli naan ko asalaamu alayka ayuha nabi yow yow yonentu yàlla muhammad maa ngi lay nuyu lii lan la ndax lii déglu rek ni déglu rek mën na la koo jox li uti àndandoor daf cee baax bala yàlla naree jëriñ kon nag feebar yaa ngoog ci xol yi xol bi nag boo bëggee mu wér nga bëgg bakkan bi wér roxo gi wér da ngay fexe ba xam bakkan lu mu taxawee ci yow ak fan la jógee ci pays yàlla bi nga delloo ko fexe ba xam kol bi lum da ci yow ak fu mu jógee ci pays yàlla bi nga delloo ko rowa gi lum da ci yow ak fu mu jógee ci pays yàlla bi nga delloo ko xam nga ne xaqiqatul muhammadiya yow yaa gën a xam ne am na jamono moom rek a fi nekk moo tax yàlla bim bindee aadama ci xaalamul asba la ne fa nufiqa fihi min ruuhi xaqiqatul muhammadiya la ci dugal muy yëngatu loxo yëg jàpp bët xool nopp dégg làmmeñ di wax xaqiqatul muhammadiyya bi dugg na mooy roxo gi fa nufixa fii min ruuyi mooy leer ak yàlla gi ñu rocc ko loxo dootul yëngatu bët dootul xool gémmiñ dootul kàddu nopp dootul déggati tànk dootul doxati kon lan yow yow bi ngay dox di di yëg di lekk di naan di dund lan nga xoon lu doon dund ci yow moo doon leer ak yàlla gi kon foog foog nga am ndimbal nga jël leer gi te mooy roxo gi ut foo ko delloo ca borom nga ut nga jël xol moom mooy barabu taqwa nga delloo ko borom nga jël nafsu bi muy nafsu nafsu xalqiya bi nga ray ko nafsu xaq bi dund nga delloo ko borom moom la alquran di ñu ne inna allaha yaamurukum an tuaddul amanati ila ahliha jël yàlla nee na digal naa leen ngeen jël kóllëre ngeen delloo ko seen borom loolu mooy tuub gi may gi may gi ma bëgg a wax te mooy wa ana tawaabu rahim man maay nangu tuub kon tuub pour génn ci bokkaale noonu la Mm-hmm. sama borom nee na gaa ñi nga xam ne nag dañoo weddi ba deexaale kéeféer ñoom ñooñu ñoom yàqu nañ ñoom dañuy continuer di nekk ci tajjiliyaati tajjiliyaati rëbb rek kan du leen bugg ku leen gise daf leen di rëbb di leen dàq xubbuhuma la bul ma jege la misaasa loolu mooy ki deexaale kéeféer yan nañ ci yàlla musal waaw suma borom nee na inna lazina naka gaa ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ wa maatu ñi dee mooy ñi faatu wahum ta booba ñoom ba ñuy faatu ku faarun ay xéeféer lañ dañu deexaale ak pas-pas bu weddi yàlla ulaika ñooña alayhim dana wàcc ci seen kaw laanatullaahi sëril ak yërmande yàlla wal malaikat wal malaikati ak malaaka yi wan naasi ak nit ñi de malaaka yi dañ leen rëbbu nit ñi danañ leen rëbbu ajmahiina mboola seen ku leen gis rek ne ku booxuma la bul ma jege de jëmm ju xesaw bët yu xaar géej gi xaalidina ñu raway sax fiihaa ca rëbb mooma fiihaa ca mbugal mooma laa yu xafafu dee fa xoyafal an hum ca ñoom alhansaabu duma yi police men bi duñ ko xoyafal de amul jéggal wala am déet ñoom yun sorona da leen muñu ndëkku aazana allahu min dalik anañ yàlla musal ci loolu kon nag daw ca ba ngay ami tànk yàlla ngi oo ci tawhid waaw comme nag bokkaaleeg yàlla ci la génn ak ku def bokkaaleeg yàlla li la ca mën a fekk xat-xat bi ngay dund ci aduna ak bu ëllëgee policeman ba nga cay amee léegi nag mu bëgg a ñëw ci wane kàttanal yàlla joxel jox la tawhid pour nga mën a bokk ci ñiy wéetal yàlla pour nga xam ne yàlla mii ku ñuy xam la walla ku ñuy xam ci moom la yàlla mii ku ñuy am fatwu ci moom la yàlla mii ku ñuy dund leeram gi la loolu da nga ko war a xam aaya bii ñuy dugg si moom la lay wax sama borom nee na wa ilaahukum seen yàlla ji kan moo ci génn ci kaaf googu kenn génnul ci ñëpp ci biir wa ilaahukum wa ilaahukum seen yàlla ji ñëpp dugg nañ ci biir wa ilaahukum seen yàlla ji ilaahun yàlla la waahidun bay benn seen yàlla ji kenn la seen yàlla ji benn la lu tax léeg ahadun lu tax léeg-léeg mu ne waahidun du benn de maanaam ñaari firi yi laa bëgg a wax ahadun kenn la ak waahidun benn la xam nga boo doon compte da nga naan waahid isna salaasa waaye doo wax ahadun boo compte doo wax ahadun isna déedéet waahid ngay wax fii nag moom la jëfandikoo mu ne ilaahun waahidun kon yàlla bi benn la ak yàlla kenn la du benn de moo tax boo demee ci asalaariya soo xamee saatul xaaliya dangay xam ahdiyatu ba pare xam waahidiya waaw dangay xam ahdiyatu ba pare xam waahidiya alquran lang wi jëm bi dafa doy waar de suñ ne yàlla ahadun kenn la fii mu ne ilaahun waahidun benn yàlla la boo ko waxee ci olof nii rek neex na dafa pour yow dégg nga ko rek mooy yàlla kenn la yàlla benn la rek waaye language bi am na lu nekk ci biir am na ba tax na fii mu ne ahadun kenn la fii moo tam fii moom mu ne waahidun la te mooy waahidiya du benn mm-hmm. kon wa ilaahukum seen yàlla ji ilaahun yàlla la waahidun bay benn laa benn yàlla ilaahu wa ndere moom yàlla arrahmaanu mooy borom xiwali haduna yi kuy nokki ci haduna di xiwal ci xiwalam gi ngay xiwaloo arrahimu mooy borom xiwali àllaaxira yi kuy xiwlu ci xaalamul axirati moom moo la jox xiwal ga de aya tawhid a ngoog aya tawhid a ngoog tawhid bi mooy seen yàlla ji benn la te nag ma xamal leen ne ilaha illa huwa kenn du yàlla ku dul moom de bokk na ci langi wi ji alquran am na ilaha illa huwa mu ngi nii jàng nañ ko am na ilaha illa allah jàng nañ ko am na ilaha illa anta jàng nañ ko xam na laa ilaha illa ana jàng nañ ko na nga foog ni yii bokk bu ci nekk rek dafa am fula la fu mu lay daay rek soo ko bëggee jël muy benn rek na yàlla yàlla rek la loolu mooy gàttañlu jullit bi warta gàttañlu mobile bi nga yore sax ni nga gisee aab yi ute utee lu nekk ñu la ko bindal daay rek la ko foo war a laal foo dul laal léeg-léeg nga gis ñaari yu niroo te bokkuñ nga xam ñoo koy doxalee delete rek soo bëgg a dem ci delete mobile bi dafa am loo bëgg a delete dañu la bindal delete all ak delete boo xam ne da ngay delete mu génn sa mobile te du génn fa mu ko yónnee woon seetal yéen nit ñi roowee alquran da nga ko bëgg a isi rek ba yàlla ne laa ilaha illa huwa nga ne yàlla la laa ilaha illa anta nga ne yàlla laa ilaha illa illa illallahu nga ne yàlla la laa ilaha illa anta nga ne yàlla laa ilaha illa ana nga ne yàlla la yépp yàlla la waaye nag lim lay junji moo tax nga war a dem góorgóorlu ji lam lay junji lam làq ci ci baaji ute yooyu huwa allah anta ana hmm? lu ci nekk maqaamam koy waxee la xam nga yoonusa moom la jën wa wann ñu ne jën woowu weneen jën a ko wann ndox ma wann leen muy ñetti kiiraay mu ne laa ilaha illa anta yow yàlla kooku moom mu ngi lay tegtal la mom xaarif la moom yàlla jañ waxoon ne mu ca kaw xaras gaa yi bind ko seen sëriñ si yëpp nangu loolu ñu ne yàlla nga ca boo jeexalee asamaan benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar nga éeg dem euh, dégg nga sidratul muntaha dem dem ca sa kursi yu fa ngay fekk yàlla mu toog yonent yàlla Yuunus ci suuf si ci tabaxu suuf au lieu que mu nekk sax ci kow jaww ji de ci biir suuf si jën woo wan na ko jën woo beneen jën wan na ko ndox mi wan na leen mu naan ko yàlla laa ilaha illa anta kenn du yàlla ko dul yow xam nga lii daf lay junj xam yàlla nag kon lii yàlla waxut ko ci làmbut alquran il faut ñu lijjanti lijjanti ji ko de hmm? dégg nga wax bi kay waxoon ne mun ceeg xaras moom lay wax laa ilaha illa anta anta moom fi fiil ak fail la anta yow anta mën nga ko wax ku fi nekkul kenn du yàlla ku dul yow comme li ma la waxoon léegi booy julli la yonent yàlla mat nga naan ko assalaamu alayka ana firikat yi kan moo mën a wax yonent yàlla assalaamu alayka te deena ba nga sul ko kon est ce que li nga wax ci arab yàqu la ko yow kay li nga waroon a wax mooy asalaamu aleyhi waaye asalaamu hmm? dafa am loo xam ne dangay foog ne dee na fekk deewut bokk na ci xaqiqatul muhammadiyya bi nga ne ko asalaamu aleyka mu am loo xam ne da nga foog ne dégg nga euh, mu ngi fi te nekkut fi mooy nit ku dee ki nit ku dee boo ko tiimee ñu ne dem leen sang dem leen sang dem leen isi ñi jullee ñi gàddu kees ga mu dis gann ñi gadar gadare ñëw teg dal di jàkkaarleeg moom naan ko allahuma ixfir lahu <clears throat> xanaa loolu moom lan la moom allahuma ixfir lahu yow yàlla yan na nga jéggal ku fi nekkut te yaa ko gadar gadaree tiim ko kon loolu moom danga nga yaakaar ne mu ngi fi te nekkut fi su ko defee kon yéena ko déggandoor wa ilahukum ilahun waaye laa ilaha illa arrahmaanu rahim ñu war ñu ne suñ taayam jeex na ñu jéem a yeewal foofu buñ dellu si waatee danañ continuer ak yéen ci aaya boobu incha allah sadaqallahu alazim nasalullaha tawfiqan wa taysiran wa najaha wa qul alhamdulillahi rabbil alamin لئن عزني لقي النبي ووصاله فقد دام لي تذكاره وخياله وإن عزني مره له وثناؤه فقد طيمني نوره وجماله الله